salaamaaleykum euh, mbokk yeeg xarit yu ñuy seetaan euh, si suñu chaîne la chaîne de l'élégance Keur Ndanane TV man nag seen si Yacine man maay amat euh, mbégte ak contentement di ñëw euh, ànd ak yéen fii nga xamante ne moom mooy sanca Santhiaba Tëngéej di ci ànd ak kenn ki nga xamante ne bokkoon na si ñi demoon euh, mooy euh, Coupe d'Afrique bu u set bi. ma ñëw nag seet si ki nga xamante ne mooy papa ñu koy woowee Karmar Karfala. Euh, ma ànd si ak moom tey ji ñu waxtaan si dem bi mu dem ak euh, mbégte bi mu ci am ak euh, tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko doon seetaan contentement biñ ci am ma bàyyi ko mu nuyoo ak waa téléspectateurs yi salaamaaleykum papa salaam maa ngi nuyu ñëpp ku nekk si tur ak sant ak ñi fi teew ñëpp di kontaan di wax tamit di di félicité waa waa Rufisque yëpp aw seen fay waaw ah, ñu ngi ñu ngi kontaan ñu ngi lay féliciter ci euh, victoire bi euh, di la laaj ne comme football bi nii euh, lan moo si nekk sa motiva motivation lan moo la si dugal. football lu ma si dugal dama fekk sama sama ñoom pap sama ñoom mag ñëpp ñu si ne. war hmm. ma commencé topp seen tànk rek loolu moom mu si gën a dugal. Hmm. te bi nga toppee seen tànk tamit yàlla def nañ ne gis nañ gis nañ si njëriñ. Euh, football bi bi nga nekkee xale nga ko nga ko tàmbali bëgg ndax ñoom ba nii nii nii yàqalu la si sa jàng dara. waaw ba noonu nii dama daan yeewu fi ay sept heures am na am dama daan tiif sax si nelaw ay cinq di génn sama yaay di ma poñe mu naa ma bul dem. Mhm. waaw. pour dem entraînement. waaw pour dem entraînement rek. boo paree jóge foofu dem jàngi. dem jàngi. Mhm. donc kon da nga boole woon ñaar yi di nga de ma da boole football bi boole tamit euh, jàng bi en même temps. waaw ñaar yëpp laa boole. Mhm. te metti mettiwul woon tamit si yow. mettiwul. Mhm. donc kon euh, sant yàlla te football bi euh, bi ngay bi ngay njëkk a commencé football ban club nga dugg. Puissance FC laa njëkk a dugg. waaw foofu laa commencé def ay tests ba dem Génération Foot. puissance effet amoon na koo xamante ne moo la doon tàggat koo xam ne marqué woon na la tamit si football bi. waaw am na am na kañ Jibi Aw la tudd. Jibi Aw ñu ngi koy nuyu de passage euh, Jibi Aw waaw léegi euh, ba nga jógee foofu après si nga dem euh, mooy football génération foot génération foot tamit yàlla def na ba nga fa demee nga am ñu woola pour nga dem équipe bu mag bi fi nga amee sa ndam bi nii loolu tamit ban ban ban effet la la def. ah di kontaan rek parce que xam naa liggéey bi moo ko moo ko war rek. liggéey bi ñu def si ñun moo tax tey ñu dem ñu jëli coupe bi rek. waaw mhm. ah. sélection bi ñu la sélectionné après bi nga ko bi nga ko déggee ban effet la la def. ah di kontaan rek. Ah. dañ dañ jugee dañ jugee tubaab julaay di ñibbisi si. Mhm. biir si biis bi lañ dugalee liste bi ñëpp. Mhm. après man amu woon liste bi man ñu envoyé ma ko. après moo gis sama tur fa ma kontaan rek. mu def la émotion bu neex. ah bu neex kay. Mhm. mooy fecc fecc naa si yoon bi. <laughs> ndax kontaan <laughs> ah. waaw loolu la de dafa neex parce que nga dem euh, ànd tamit ak euh, say moroom yàlla def ñu di jël la si boole la si li nga xamante ne mooy euh, sélection coupe d'Afrique bi dafa neex. Ah. moo tax jaar na fecc tamit ma lay laajaat si affaire yooyu noonu comme fi nga nekk nii. bi nga demee si jour bi nga xamante ne moom ngeen waroon def euh, final bi tamit euh, amul woon dara loo xamante ne mi ngi la ci doon xaw a traqué wala yooyu. non ñun avant ñuy avant ba ñu demee dañu la 20 dañuy ñibbi si parce dem jëli coupe bi am woon dara. Mm. dañu demoon pour jëli rek. Mm-hmm. xam nañ li liggéey doy nañu. macha allah ay gaynde ngeen daal. te tamit ambiance bi foofu ci biir tanière bi nan la demee woon. Ah, ambiance bi da neex parce que chaque jour avant Vérémos dañuy reeño dañ ñëpp ay dem si néeg ñu réunion ku nekk wax li nekk sax xel mm-hmm. suñ demee loolu la ñuy appliquer rek mm-hmm. waaw amul woon ay déconnage ay affaire yooyu noonu ah, yëngal yaram yi wala si terrain bi ngeen di yëngalee waaw terrain bi la dañuy mm-hmm. yëngalee yaram bi waaw baax na léegi euh, ma lay laajaan tamit euh, bi nga amee ndam bi ba ñëw fii nii ñi nga xamante ne ñoo la doon seetaan sa biir koñ ak tamit sa famille bi nga ñëwee liñ la recevoir lan la la def ah neex na ma trop parce que kontaan naa tamit gars yi ñu may oo chaque instant kañ ngay ñëw kañ ngay ñëw. Mm-hmm. bari ñi lañ ma dab lañ ma dabee. Mm-hmm. andi ma ba sa njëriñ ma kontaan bi bég naa daal. Mm-hmm. te ñoom tamit bég nañ xam naa ne kontaan nañ. waaw macha allah tamit euh, gis nañ ne ki nga xamante ne moom mooy euh, le président Macky Sall recevoir na leen. tamit euh, jox na leen ay décoration ak yooyu kontaan nañ ci affaire bi Euh, ma la doon laaj ndax am na lenn loo leen fa waxtaane loo xamante ne lu lu lu ngeen di programmer si yéen lu mu lu mu war a def si yéen si seen côté jàng parce que yéen a ngi football mais en même temps da ngeen di jàng maanaam am ngeen euh, suivi. waaw ah, am nañ suivi bu baax kañ dañ lu ñu war rek la ñuy def. Hmm. kontaan nañ trop tamit bañ demee foofu. Hmm. mu recevoir ñu dalal ñu. Hmm. wax ñu lépp kontaan. macha allah euh, tamit euh, da nga ne woon sànq maire da la doon téye di naan laan ay demal jàngi ba pare affaire yooyu tey tey moom nan la gisee ndam bi. ah gis na ko résultat bi trop dina tax nga gën a redoubler redoubler d'effort. Ah, hmm. ah, baax na comme euh, nga ne yow sa ñoom papa ak sa frère si nga jëlee football bi à cœur tax ba nga dem tey jii ba ñëw fii yegg si fii nii. Euh, sa ban frère la boo xamante ne dala marqué. waaw mag bi toog basu. Mhm. moo mhm. moom si la nekkoon après mu après mu dem ba mënatul mu jox sama beneen mag bi Souleymane Camara. Mhm. après mu ma soog a ñëw. donc kon de c'est de génération en génération. macha allah euh, bonne continuation. tamit euh, ñu lay laaj sa mot de la fin lan ngay tëjee sa émission bi. ah di kontaan rek. di wax télé bi yàlla na fi gën a yokk yàlla yàlla bi gën a yokk ñu lay ñaanal euh, cat seexlu la tamit euh, nga fekkee lu bari bari bari ci côté football bi macha allah maaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu ñëpp maa ngi tudd Bassamba Camara euh, grand frère Kalfara ñoo ngi ñoo ngi kontaan bu baax bu baax a baax a baax si waa Tëngéej. Euh, particulièrement waa waa Santhiaba parce que yaakaar naa ne papa amul seen fay quoi benn xale bu ndaw depuis depuis démb toute la journée presque booy fi neen ko passé suba gi nañ yeewu ba 5 heures xaw ma ba 4 heures ñoo ngi fi kon ñooñu noonu papa amul amul seen fay beneen bi tamit mooy papa ma lay di la wax ne euh, loo mën a góorgóorlu ak loo mën a rey sa bopp rek nga rey ko sa bopp parce que li nga am démb ah néew ma néew ma yomb na de mais. kalaa kay am di nga wax lu set li nga li nga am démb rëy na trop meer yeex paa yeex koo gis ñëpp kalfala kalfala kalfala kon loolu yombul am na leneen am na leneen loo xam ne mu ngi ci quoi du hasard man li ma lay ñaax mooy bu fekkee da nga doon def benn noo defal dix sa gaay bu ñuy def ñaar papa defal cent parce que ma nga dimbali sa bopp de bul xalaat sa bopp waxuma sa famille sax ma say waa kër mais ñi nga war a dimbali dafa bëri du seen waa kër du yow rek ñi nga war a dimbali dañoo bëri maa lay ñaan nga góorgóorlu bu baax a baax kontaan neen bu baax a baax aussi si waa sanjaba amuñu seen fay Sandiaba bi ñëpp ñëpp ku lim da ngay juum bàyyiwuñu kenn di leen jërëjëfal bu baax a baax merci beaucoup. waa euh, waa dégg nañ euh, li nga li nga ñaax sa sa sa frère bi. tamit euh, li ma la doon laajaat mooy euh, ndax yéen yéen a ngi continuer si li nga xamante ne moom mooy euh, formation bi wala da nga ko club bi mu nekk rek wala ba léegi yaa ngi ci sa loxo mi ngi ci. waaw daanaka moom li mu fi nekk bëriwul parce que ñoom dañoo dañoo loger foofu génération foot la nekk dañoo loger foofu weekend ba weekend la fi ñëw bu ñëwee tamit ñun li si wër yëpp ñoo ngi koy def vi ko ñoo ko ñoo fubal peut moom chance bi mu am nii sax xëy na man. dama ko amul woon mais amoon naa fi présélection U17 ba may doy ni moom boobu maa si benn centre formation bu tudd local. bu nekk Tëngéej mais après si présélection yi ñun dañu wàññiwaat mu yeewuñu dem ñu jëloon suñu centre yëpp vu dafa amoon ay discussion yu ndaw moo tax. kon moom mënuñu nax si benn côté. mënuñu nax si benn côté aussi tamit lu si war yëpp dinañ ko si taxawu. dinañ ko si jàppale bu baax a baax a baax parce que suñu réussite réussite am A. pour man du réussite du euh, famille bi rek du réussite du Tëngéej rek réussite ñëpp la pour man waaw parce que moom li muy représenté fu mu toll nii dafa bëri li muy dafa bëri waaw. kon euh, fi mu ne nii kon yaa ngi am contentement bu baax a baax ci ndam bi ñëw. waaw boole euh, ak nit ñi Sénégal gi yëpp ni ñu amee bég bi léegi yow li nga koy li nga koy ñaax ci football bi mu ne ak club bi mu nekk lan la. li ma koy ñaax leen lenn rek mooy fi mu teg tànkam bu mu ko tegee mooy selon premièrement euh, mooy lu ñu suñu yaay ak suñu papa yi jàngal mooy yar ak teggin lu mu la mayul dara du la ko may. bu dul boo paree ci loolu jour nga jour premier objectif am bu njëkk mooy booy da nga war a di entraîner chaque jour matin et soir. ray sa bopp parce que loolu moo la war après li si des yëpp ñu bàyyi ko si loxoy yàlla man loolu laa lay ñaax beneen bi nga respecté sa bopp am hygiène de vie xam yow yaay kan. Mm. loolu moo yor loolu moo yor jour mm. hygiène de vie la jour nga am nga am nga chance ñu ñu oola si U17 yi ngeen dem jël euh, Coupe d'Afrique mm. pour man début la du sax dara dangay ngay door amagoo contrat professionnel ñoo ñaan yàlla nga am contrat yu mag mag ñu lay dégg fi ñuy dégg jour yu mag yëpp waaw yàlla mën na ko yalla ay mbiram loolu moo si gën a ndaw mais li njëkk mooy nga góorgóorlu bu baax a baax a baax nga respecté sa bopp bu baax xam yow yaay kan instant bi dès maintenant mm. yow la nga war a xam yow yaay kan waaw sa yar bi nga ni nga nekkee nii nag su ma sañoon bu si dindee dara loo si doliwul bu mu dañ continuer édi yar bii continuer ka ba ba ba keroog ngay dee sax laay wax mm, mm. parce que lu la yar mayul dara du ko may te man gëm naa ne moom yar moo ko may li mu am ni waaw moom wax sax mënu ko loo wax waaw waaw la lay wax loo ko wax waaw la lay wax loo mun di wax waaw lay wax kon kooku noonu xam nga yar xëy na moo ko may loolu. waa lii de nekk na benn témoignage boo xamante ne grand frère am moom moo ko ko defal te li mu témoigné dafa dafa leer nee na ku am yar la te ñun ñi nga xamante ne ñëw nañ fekk si que fii nga xamante ne moom mooy këram yar lañ ko fekkee ak euh, tamit euh, nekk na nit koo xamante ne xam na àddina. Euh, ñu lay jaajëfal bu baax a baax si sa témoignage bi nga si def di la remercier tamit. ok jërëjëf kontaan nañ bu baax tamit si yéen waa Kër Ndaanaan TV télé bi yàlla na gën a yokk bu koy dégg partout au monde incha allah. amiin jërëjëf. merci. maa ngi tudd Idrissa nekk consultant à la consultant sportif à la RTS euh, yàggu yëngu tamit si petite catégorie. Mm-hmm. Ah, comme na ni ma déggee nga waxtaan euh, ni nga waxee ni nuyoo bi. Mm-hmm. danga xam football. waaw am na lu si xam tuuti. Mm-hmm. waaw tout d'abord dañuy nuyu Pa Camara bi nga xamante ne par son biais si laa xam doomam bi di le nouveau champion d'Afrique di nuyu tamit ñu ñu fekk si kër gi yëpp man riverain la parce que maa ngi dëkk kër Sala Mbaye donc am na volet yu bëri du si mën a dugg man fu ma bëggoon wax rek mooy par rapport ak volet sportif bi mais que papa euh, dañ koy féliciter parce que Sénégal dafa bëri ay centre waaw avènement centre yi dafa dafa dafa bëri boo xoolee suñ petite catégorie looloo favoriser sax ñuy dem si tournoi di représenter Sénégal dignement donc ñoom dañ koy féliciter d' abord li fi centre yëpp ne ñu war a yóbbu vingt trois ñu boole ko si d' abord dañ ko siy féliciter si loolu mm-hmm. maanaam c'est un gamin qui bosse mm-hmm. bu loolu weesoo ñu koy félicité waat si maanaam li mu dem ba foofu bokk si nga xamante ne dañu bokk xale yoo xam ne ñoo indi ndam li fii ni ba bégal Sénégal mm-hmm. waaw. léegi yow maanaam kontaan nga si bu baax a baax te tamit euh, comme yow yàlla def na ne am nga benn expérience bi si football bi te boobu ba léegi si ni ma déggee ne yaa ngi koy suivre euh, lan nga gis ne moom la war a yokkaat ci football bi. waaw comme comme ni ma la ko waxee rek. petite catégorie kii xale la dafa nekk di jàng dafa nekk di jàng te de passage dañuy remercier waat mooy ñi leen yor mooy ñoom maa maadi ak yeneen centre yi si mel ni jàmbaar parce que tey Saliou ja moom c'est juste un sélectionneur tey booy dafa am fu ñu nekk pendant at wala ñaari at ñetti at di liggéey donc yow boo ñëwee da ngay jël sa bëy nga xool booy yu pare nga yóbbu leen nekk ak ñoom benn une semaine tournoi bi tournoi bi commencé liggéey mun def si ñoom du bëri donc dañ dañu war a njëkk remercier ñi nga xam ne ñoo leen di loger leen nourrir ba pare di def si ñoom xam-xam ba pare mu war a jëm kanam parce que fii ba 18 ans la avant 18 ans yi nag ñu ñaanal leen ñu décrocher ay contrat pro mun a mun a dem wane seen bopp yaa ngi dégg man lu ma koy ñaax mhm. en tant que éducateur mooy kil grandisse un peu plus vite mhm. lu ma koy ñaan mooy pression familiale ay non yaa war a def lii yaa war def lii mu jël ko si mi yére boobu te ko faire qu'il se fasse plaisir d'abord mm-hmm. parce que le football mm-hmm. c'est le plaisir mm-hmm. après yeneen yuy ñëw yëpp la après yeneen yëpp day ñëw mottali nga def li nga war a def mais déjà il a besoin moom mu toog dindi lépp li nga xam ne dafay sonal si boppam ah pour mun a buy delluwaat clubam nekkaat si benn dynamique boo xamante ne danaan am na foo xamante ne jaar naa fa. Mhm. am na lu ma am. ba mhm. ma droit delluwaat ci ginnaaw. Mhm. yaa ngi doon entraînement bi sérieux teel tëdd bi. liggéey tey j'étais parti à une compétition. j'ai joué des matchs j'ai entré dugg naa en cours de match. non lan moom ma manqué woon. ma xam déjà lu ma manqué. lan mooy sama fort. ma xam lan mooy sama fort ma liggéey ko pour mu gën a yokk nga xam ne chaque jour coach bi day bég si côté boobu li ma manqué. ma dem ma liggéeyi ko. loolu nga ah, koy dolli laa mhm. koy ñu ngi lay jaajëfal euh, bu baax a baax si sa euh, intervention. Euh, en tant que consultant sport. ñu lay remercier bu baax. Mhm. merci ñu leen bu baax leen gërëm. Mhm. Abdoulaye Diouf mais tur bi gën a xam au niveau du département de Rufisque ñu gën a xam si tur commissaire tur boobu lañ gën a xam. maa ngi dëkkee fii si quartier Sanc bi Ndiobène moo ñu fii tey si wàgg war a jàkkaarloo wax sama doom. waaw mais charge laa ci sanc bi kooku daal laa mën a am ko fi mu nekk nii nag ah, li ma fi indi tey mooy kontaan moom fi indi alors fi may jëkkee mooy euh, ki nga xam ne moom mooy pape xale bi nga xam ne moom fi tax mooy àll ah, kër gi kër jour fii ñëpp dañuy fubal wante moom dafa doon bàyyam papa ji dafa nekkoon jour ASC deew bu ñëwulee daanaka mën na wax ne équipe bi du dox mais suñu boolee ñu ñaar bu ñu demee ba stade il faut que mu am lu ma dénk ma téye ko loolu moo ne sama couleur ak moom jusqu'à nos jours moom mii sama sama kanam la juddoo donc moom tànki tànki bàyyam la la topp léegi li nga ko mën ko conseiller en tant que sage mooy lii ji doon wax rek que jàng bi moom moo gënoon nekk si xelu yaay ji wante ah, yaay ji dafa doon yàlla mooy dogal lii la yàlla dogal tey moom te mu nekk doom ju yaru nag mu jox jox ñu cër ñi nga xam ne ñooy ñooy xaritu papa ji mu jox aussi ay cëru magam magam donc ñun en tant que sage ñu mën a wax ne mais tous les sages yi nga xam ne nekk si bi ñun ñu ñaanal dañ ka ah, di ñaanal aussi télé bi waaw man tey laa leen soog a gis am na ñu fi a xam sax peut-être seen tur ah, désormais lii moo ñu boole mais ñun takk nañ leen ñu nekk des partenaires à partir d'aujourd'hui tekk nañ leen ngeen nekk des partenaires donc euh, li wax yaaja rek mooy ah, lii rek lu waa kër gi bëggoon moom tamit papa ji lii la bëggoon donc euh, na gën a góorgóorlu parce que li kanam moo moo gën a métti de li moo gën a métti dañ koy gën a ñaax rek mu gën a góor góorgóorlu moom aussi mi nga xam ne moom mooy papa ji aussi encore ak nga xam ne moom mooy waajuram bu jigéen ki ñaan mooy seen devoir mais au nom de l'ASC Dewo en tant que sage surtout le comité supporter au nom de l'ASC Diamaguène Wagg Thiandoukous mooy mooy bokk jom ba ASC Lebu gi ñëpp ñëw noonu fi démb seen manifestation bi donc moom wàcc waa sant bi wàcc noonu ak moom moom moo des nag moom moo des moom moo wone moom moo war a wone euh, li nga xam ne mooy doomu sant bi ji nañ ko xale bu ndaw la demagul fenn l'avenir est devant lui donc loolu daal pour le la am ne mën naa ko war a mën a wax tey bu papa ji nekk woon man maa fi nekk à sa place donc comme papa ji nekk nii rek damay xaw a dagal tuuti rek a a fekkee am nga question yooyu la laaj nag boo ma laajee ma wax la supporter koñ bi wala si moom wala si papa ji parce que il fut un jour de l'ASC Deo bien connu turam dëgg dëgg soo ko du nga xam mais ci àll xëy ñëpp koy xam en travail en travail en de Rufisque ñëpp ñëpp nga xam donc loolu daal laa a pour le moment. Mhm, parce que comme bu ma lay bu ma la lu ma la bëgg laaj euh, day doon si jour boobu nga xamante ne am nañ ndam li Sénégal gi yëpp a kontaan képp ku nekk fi nga mënti nekk. am nga mbégte dama doon laaj nag fii nga xamante ne moom foofu la foofu la dëkk muy sanca ba yéen nan ngeen dundee bés boobu. d'accord loolu loolu neex na répondre parce que moom def ko pour Santhiaba rek ah, li yàlla jox li ñu yàlla jox du pour Santhiaba rek c'est pour tout le Sénégal ma koy remercier encore bi nga xamee ne chef de l'État le président Macky Sall recevoir na leen donc dafa leen doon ñaax rek dafa leen doon gën a ñaax mais lu Sénégal kontaan kontaan kontaan ñun ñoo ñun waa ñun waa sanca bi xam nga boo ne sanca bi mais ñoo ko bokk de ñun ñëpp waaw waaw mais boo ne sanca bi toogoon di seetaan dama doon yuuxu de tey tey tàccu non non boo ne sanca bi <laughs> il faut que nga ñëw caareen il faut nga ñëw caareen ba pare il faut nga ñëw si suukat yi il faut nga ñëw caareen mhm. il faut nga ñëw njóobeen mhm. il faut nga ñëw wàgg gi nekk nii il faut nga dem jàmb gën il faut nga ñëw champ de course mhm. loolu moom lañ ko moom ngeen regroupé mu ngeen tuddee ko mu nekk sanca ba donc mais sans la télé gox bi yëpp la waaw mooy gox bi mais sans la télé dara du feeñ dara du dox donc moo tax ñu ne il faut ñu remercier leen donc sanc bi fi mu nekk nii ñun li ñu def xeeb li ñu nii mm. dañ xeeb quoi parce que daf ñu bett bettu méttee métti bi ko conseil bi di annoncé boo fekkee ne activité yu bari ñu nekk si mais daf a a mm. mm. woon bu def nii dañu bàyyi benn jour ba mu reposé mm-hmm. ñu toog na soog ko nag jox ko mais loolu moom ñu téye mm-hmm. lii moom premier part xam ni ñu ko mën a waxee mm-hmm. plan A. Mm-hmm. mais plan B des na. donc loolu lañ loolu waa Sen TV dinañ ko doxal. waaw léegi bu boobaa ñun waa Kër Ndaanaan TV dina ñëw ànd si ak yéen bu baax. incha allahu rabbi euh, papa ñu ngi lay remercier euh, ñu dippee tur bi muy euh, commissaire Abdoulaye Diouf ñu gën la xam ci commissaire mhm. comme ni nga ko waxee ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax si sa waxtaan bu rafet bu sell mhm. tamit di la wax ne ba beneen comme plan B bi mi ngi ñëw kon man bi leen remercier bu baax a baax waaw mhm. ah, di leen ñaanal yàlla ni ngeen ñëwee si jàmm fii rek yàlla na yàlla delluwaat si jàmm mais bu leen fàtte ne ñu sommes des mm. waa sant bi mm. ak def nañ leen partenaire. kontaan nag merci jërëjëf. Ah, maa ngi leen di nuyu yéen waa naan TV yéen sant leen gërëm ci ñëw bi ngeen ñëw sama kër pour interviewer sama doom Karfala Camara ñu koy tudd papa man may papa tudd Aboubacar Camara ñu ma gën a xam te nga gën ma xam ci alaxay yaakaar naa ne ñi ma xamul bariwul sama génération. pérégrination bi sama doom nag euh, mën naa ne li jaree sama taaw ba si caat mi football lañ dund parce que man mii di wax ak yow su fekk na woon sama papa da ko nangu woon si man kon ëpp naa lii mais sama papa dafa ma ko tere woon ma xaru xaru ba am si ay doom ñu bëgg ko ma jàppale leen si li mu wax ci kato yaayam dëgg la dara yeew suba teel ma ne ko ana ah, papa mu ne ma demati na de ma ne ko waa fu mu dem mu ne ma teelee mu ne ko bàyyi benn jour xam naa dafa yow yaay dafay yow xaw ki noonu ana papa mu génn mu poñe ko bu ko dóor sama benn xarit boo xam ne mag ñoo doonoon fubal ne ko bàyyi ko kii dafay liggéey mu ne ko lu muy liggéey mu ne ko bàyyi ko mu dem di mu ñëwee ba ma toog ñuy ndekki mu ne ko waa papa yow dama la wax nga jàng nga yaa ngi liggéey mu ne ma yaay bàyyil ma liggéey nga jariñu macha allah ba tey mu ngi bon dañ baal ma foofu bi mu ñëwee ma wax ko ma ne ko léegi baal xale bi mu liggéey mu jariñu yàlla def mu continuer nekk si puissance expert moo ki ko yowoon ñu koy tuddee Lampar benn jour génération foot ñëw fi di entraîné waa puissance expert fekk mu am sama benn grand bu yore woon catégorie boobu mu tudd tudd Abdou Diakhaté ñu jaxu ñu ñëwee fekk Lampard def Karfala comme un remplaçant ñu ko dugalee man maa ngi taxaw à côté ma dama làqatu jaxu parce que bëgg mu woon mu gis bi booy bi demee ñaan ñetti yoon mu oo Lampaar ne ko mais booy bi kan la mun na ko xamuloo ko mu ne ko déedéet mu ne kii doomu mu ne ko déedéet boo gisee ñii dem ma dem sama yoon bon benn jour yaayam bi dem marché tajeeg Abdou Diakhaté mu ne ko neel alaxee mu indi sa doom génération foot dañuy def ay test mbambi loor bon bi ma ko waxee ma ko amul problème comme aw ma doole mais naa génn su guddi lu ma paase pour yóbbu xale bi te xam naa bu ma demee dinañ laajte ma demee aussi yàlla def ma am tuuti xëy suba yóbbu ko ñu def premier test mu jàll. ñu dem demaat deuxième test mu jàll troisième test bi defuñu ko Bambilor génération pour lañ ko defee. Mhm. ñu leen léegi te ngeen di indi xale yi mais da leen fi bàyyi pour trois jours. ma demee ma bàyyi ko fa mu def ñetti fan ñu indiwaat ma ne ko nag lu si yow la continuer sa njàng nga dem ci làmpa mu continuer njàngam di dem ci Lampaar benn événement bu amoon si kër gi toog na ay deux mois trois mois chaque jour mooy laaj papa ma ne ko ah mu ne ma kenn oogu la ma kenn oogu ma de événement am fii mais dell ay chaise parce que comme ngeen bu fi amee wala xew ma gisul kenn man maa defal sama bopp waaye léegi xaar ma delloo chaise yi ma liyee woon bi ma génnee ba toll si ruufu bi un certain Doudou Gueye ooma mooy secrétaire général génération Foot monsieur Camara mu ne wooy mu ne mu génération Foot dañ ko oo dañ ko jël su ma amul woon maîtrise chaise yooyu yëpp dama koy fay parce que ma ko doon damm uh-huh. parce que dama ko sànni oh. heureusement macha allah dafa neex. bi ma ñëwee ma wax ko yaayam mu ne ko ah wax nañ ma lu neex tey mhm. sa doom jël nañ ko génération foot mais comme daf ma doon topp di ma wax di ma wax du ma ko waxagum dara yow laa ko wax mais nëbbal ba suba. dañu mhm. yeewu ñu ndekk ma ne ko ah papa mu ne ma damay dem Dakar pour toppatoo ay kayit mu ne ma yem kayit mu ne ko ba ma ñëw ma demee ñu jox ma filiation yi ma ñëw toppatoo yëpp ma ne ko génération foot jël nañ la da nga war a dem génération foot. tuuti mu damm sama lal. <laughs> ndeysaan dafa kontaanoon. man tamit xam naa ne lool laa si mën a gërëm nag. Mhm. di gërëm. Mhm. waa Tëngéej di gërëm waa Tëngéej muy góor di jigéen. Mhm. di gërëm sama benn booj. Babi Gaajo. dëkk Kastoor. di ko sant. di ko gërëm. bi mu ñëwee ba léegi otoom. essence am dooleem yëpp def na ko si xale bi. maa ngi koy sant di gërëm di gërëm doomam tamit bi muy àndoon muy papa Gaayo parce que papa moo ko booleeg suma doom mu jël otoom bu bees tax def ci essentiel mu ànd ak moom guddeeg bëccëg ba ngoon maa ngi koy sant di ko gërëm gërëm bu baax di gërëm Tëngéej yëpp di gërëm Sénégal di gërëm Macky Sall parce que recevoir nañu jox nañu as suut ñu ngi toog ak moom alhamdulilah rabbil alamin ku ñu defal te gërëmoo doo gor ñu ngi ñu ngi kontaan bu baax euh, tamit si yaatal bi ngeen ñu yaatal fii euh, donc comme ni nga waxee wax nga ba benn instant am nga are boo def euh, arrêt boobu day confirmer ne rek yaa ngi am kontaan si moom bu baax yal na ko yàlla mottali yal na dem fu gën a kawe fii ma la doon euh, li ma lay laaj euh, muy sa dernière sa dernière euh, moo ci waxtaan bi ak tamit lan nga koy ñaaxaat ci li muy def nii. kii li ma koy ñaax mën naa ne du bari waaw li ñuy li ñuy laajte fii léegi nii euh, dafa am ñu ne dañu bëgg a xam sa première fois bi nga ko seetaanee muy def compétition lan la la def. première fois moo ko fekk muy def compétition génération foot dafa ne daf ma oo euh, mu nekk à base bi ma demee. comme kenn mooma fa xamoon ma ñëw toog si tribune bi bi ma demee gis ko mu fubal génn après gars di wax papa quelle fois quelle fois lii nii ma oo ko ma ne ko dafa góob fi dara ñii dañ lay yey parce seen morom nga fi nekkal malgré que tourné nga def nga lépp dugal nga biir jol nga biir jox nga biir sa décisif li ma gën a bëgg mooy que dañ la wax lii ñu lay wax nii papa nii papa ñun dama bëgg lañ la wax nga def plus bu ñuy nelaw jógal entraîne bu heure jàng jotee dama jàng bu ma ko waxee nekk de benn coach mu ngi sama ginnaaw muy alsan ma ma père tey nag laa dégg dëgg ñoo seetaan ci doom ñu ni war a wax moom nga wax ko lii mm-hmm. c'est très bien man ko ñoom laa dëkkal noonu sama doom yëpp loolu laa di wax mm-hmm. football ngeen opté te dama leen ci jàppale mm-hmm. mais su ma amoon doole yéen njëkk fi def Mm-hmm. mën naa ut ñu leen jaay mais yéen a ko appelé yéen a koy liggéey. Mm-hmm. parce que football dafa fiir. Mm-hmm. ni jàng fiiree noonu la football fiir. dëgg la da ngaa footballeur nga. da ngay ànd footballeur. damay entraîné damay tëdd damay lekk damay nelaw. point. loolu mooy football. waaw ñu ngi ñu ngi kontaan bu baax léegi euh, sa mot de la de la fin lan moo mot de la fin mooy que maa ngi sant di gërëm toute la famille Camara di sant sama soxna nag di sant yaayam bu baax a baax mu ñëw na ma yéer sàng na ma sutural xamalu ñu ko dara xamalu ñu ma dara di ko sant bu baax di ko gërëm muy Fatmata Diallo maa ngi koy sant bu baax bu baax a baax a baax a baax di sant nag ku ma gën a lakkal kër gi muy dàmbaa tuuti <laughs> nee ma jàmm fenn sama jarbaat la ah. <laughs> dàmbaa yaa ngi dégg <laughs> mënoo fayu de sant ah, ñi ngi ñi ngi di sant képp koo xamante ne dëkk nga Tëngéej mm-hmm. képp koo xamante ne ñëw nga ak ñëwuloo ci teewute bi mm-hmm. maa ngi lay sant di la gërëm mm-hmm. waaw particulier Babi li ma defal dafa rëy trop te nga yëgal na oto bu gàddu ko di ko asalaam ngeen ma ak sant nag kal Ndanane TV sa kaw sa kanam amiin <laughs> jaajëf jërëjëf waay waa Aliya Aliya nuyu naa la fay naa la yow sànq maa dégg yaa